département de Dakar. Ces élections revêtent un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays. Il y a une dizaine d'années, nous avons, dans la douleur, entamé une marche patriotique avec la naissance de PASTEF les sous la direction du président Ousmane Sonko. La victoire éclatante du président Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour de la présidentielle 2024 ne signifie pas la fin de la marche. En effet, notre action politique n'avait pas pour finalité d'élire un homme, mais de transformer radicalement le Sénégal. Refonder les institutions et assurer à chaque Sénégalais le bien-être économique et social. Ce qui passe par une majorité confortable à, à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les élections législatives du 17 novembre 2024 constituent une étape hautement importante de notre marche patriotique qui va se poursuivre jusqu'au redressement total du Sénégal. il s'agit de donner au président Bassir Diomaye et au Premier ministre Ousmane Sonko les moyens de conduire les réformes politiques, économiques et sociales pour lesquelles le peuple sénégalais a opté sans équivoque pour le changement. Chers frères et sœurs patriotes, chers alliés, chers concitoyens du département de Dakar, j'invite chacune et chacun d'entre vous à rester mobilisés tout au long de la campagne électorale. mais dans la main, parcourons chaque quartier et chaque ruelle de la capitale. Visitons chaque maison, chaque marché, chaque atelier, chaque terrain de jeu. Allons à la rencontre des Dakarois et Dakaroises, ou qu'ils se trouvent, pour partager avec eux le projet qu'ils ont tant soutenu. de jours comme de nuit. Occupons le terrain. Aucune parcelle de terrain ne doit être cédée à ceux qui ont été sanctionnés pour avoir pillé le Sénégal et qui cherchent à faire de l'Assemblée un refuge pour échapper à la reddition des comptes. Aucun espace ne doit être laissé aux revanchards qui n'ont que, que l'insulte à la bouche comme programme de campagne. C'est à ce prix que nous allons conquérir une majorité parlementaire permettant au président de la République et au Premier ministre de mettre en œuvre le projet Sénégal 2050. Mes chers frères et sœurs patriotes, chers alliés, Dakar a déjà choisi notre camp qui est celui du et de la vérité. Cela ne fait aucun doute, Inch'Allah. Donc, nous ne cherchons pas seulement la dans la capitale, nous sommes à la quête d'un plébiscite à Dakar pour rendre plus éclatant le triomphe inévitable de PASTEF, les Patriotes, au soir du 17 novembre 2024. Vive le président Vive le Premier ministre Ousmane Sonko. Vive la liste PASTEF les patriotes. Vive la liste PASTEF du département de Dakar à sa tête le grand et l'inévitable Borom Dakarou Abass Fall. Merci beaucoup de votre mbokk yi maa ngi ku nekk sa tur sa sant di di xamal ni campagne bi door na ko depuis dëmb waaye nañu xam lu ma jot a wax sànq amul benn parcelle boo xam ne war nañ leen ko wàccal may lancer appel à tous les Sénégalais à tout les Sénégalaises ñoo xam ne ñu ngi fii ak ñoo xam ne ñu bitum réew képp koo xam ne sa mbokk mu ngi Dakar maa ngi ñaan nga sensibiliser ko xamal ko 17 2024 yi xamal leen tamit amoon na lu xewoon dëmb ñu koy naxarlu ñun yëpp nous avons beaucoup souffert nous avons enduré aussi pendant dix ans sans répit tey jii nous sommes au pouvoir on ne peut pas accepter aussi que ñu nekk toujours dans ce genre de difficulté là mais ñun dañu war a ànd ak suñu xel xam ni bokkuñu ak ñoom duñu mës a bokk ak ñoom impossible xamal leen tamit ni à partir d'aujourd'hui seen seul leitmotiv ak seen seul endurance mooy nan la ñuy def ba jaxase élection yi na amenant sur le terrain politique la violence ñun nag ah wax dëgg yàlla ñàkkuñu fayda waaye nañu ànd ak suñu xel xam nu ñuy répondre à ces gens-là parce que xam nañ ko jiite seen liste muy Barthélemy Diaz muy maire de war ma koon tudd sa waay je préfère dire les chose telles qu'elles sont amuñu kenn koo xam ne mën nañ ko ragal ak lu jot traversé pendant ces dix ans lu ma jot a wax fu nekk jaar nañ fa te jii du nit kooku moo ñuy tiital ba ñu mën a dellu gannaaw il lu may wax toujours ne répond pas ne ñun la violence par la violence ñun ay borom xel lañu te Pastef su ko demee ba toll fii xel moo ko fi ànd du leneen donc par conséquent maa ngi ñaan yëpp. lépp lu ñuy def nañu qu'on très vigilant xam bépp pas bu ñuy teg bépp action bu ñuy poser ñu xam ni ñu koy poser te gën naa ni incha allah la victoire ça sera extraordinaire loolu dama ko gëm ça sera éclatante sans aucune mesure di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup monsieur Donc après ce discours de haute facture, monsieur Cheikh Fatma Diop, vous avez un gros défi. Monsieur Jamil Sané euh, a